dalli na jàmm ba tey ci xibaar yi bitim réew yi ca fële ca Nigéria gannaaw li nga xam te ne moo di élection yoo fa xam te ne ñoo di partisan kii di Atiku Aboubacar wéyale na li nga xam te ne moo di manifestation yi ndaxte tey jii ña nga doon manifester fële ca ba ngir moo ñooñu ñooy ñi nga xam te ne ñooy eh, ñi jiite li nga xam moo jëm ci lu jëm ci élection yeeg wàññum xam maag yee ca aju ndax ñoom la nga xam te ne moom lañ wax ca manifestation bi nga xam te ñu ko doon amal tey jii ca fële ca Abuja moo di ni d'accord ci victoire bi bi nga xam te moom la seen ñooñ eh, seen opposant daal di amee nee na ñoo la ñu d'accord moo di ni ñoom ñooñu kii di partisan yi ki nga xamante ni moo di Atiku Aboubacar ñoom ñoo gagné ndax kat la nga xam te ni moo xew sax moo di communauté internationale bi ak ñi nga xamante ni ñoo yi fa nekkoon lañ wax moo di ni ay jalgati am na ci li nga xamante ni moo di élection yi waral ñoom ñu ni kat rejeté nañ li nga xamante ni moo di victoire bi nga ni moom lañ bëgg a teg ci seen kaw ni kat d'accord ci loolu lañ wax moo di ni ñoom ñii ñoo di ñi nga xamante ni ñoo gagné ndax la am ci Badès moo di fraude électorale moo am ca foofee ci Nigéria